li ma bëgg xamal ci côté bourse yi mooy euh, question des bourses du question université université li jëntuwul ay problème problème bourse en tout cas rectorat géré ko CROUS géré ko même ministère enseignement supérieur bi nga xam ne mooy suñu ministère moom gérewul question des bourses li mu géré mooy au plus tard le huit de chaque mois ñu envoyé état yi ko banque mun ko fay mais comme ñun aussi ñoo nekk autorité ci université bi bu ñu xamee ne am na problème boo xam ne bu ñu ko lijjantiwul mun na mun na jar mun na mun nañu indi ay difficultés surtout sur le plan pédagogique ñu jéem a xool naka lañ koy régler te ci suba ba ma xëyee li ma njëkk def mooy dama saisir waa Ecobank pour ñu wax ma euh, euh, bourse yi taux de paiement bi aujourd'hui xam ngeen bourse yi Ecobank moo koy fay mais daf koy jaaree ci ay opérateur opérateur yooyu ñu ngi toll ci juróom-ñaar boo jëlee opérateur bu ñuy wax ATPS téeméer bu nekk fay nañ bourse yi ci juróom-ñetti fukk ak juróom ATPS boo jëlee Free mu ngi ci juróom-ñetti fukk ak ñett ci téeméer bu nekk boo jëlee InTouch mu ngi ci juróom fukk ak ñeent ci téeméer bu nekk boo jëlee Orange mu ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci téeméer bu nekk boo jëlee César mu ngi ci juróom ñeenti fukk ak benn ci téeméer bu nekk boo jëlee Wave fee nañ bourse yëpp ñu ci 100 pour cent hmm. te boo jëlee Wizall mu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom hmm. boo defee tey moyenne bi bourse université Gaston Berger yëpp fay nañ ko ci autoroute téeméer bu nekk fay nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom hmm. xam nga ne loolu taux bu acceptable 95 pour cent. incidence bi nga xam ni grève bi am na ko ci li nga xam ni mooy. kopparu crous bi nga xam ni moom lay soxla pour que étudiant bi nga xam ni moom moo dëkk ci campus social bi mën a nekk dans de bonnes conditions parce que koppar yu ni am lii mi ngi jógee ci état bi ab subvention waaye lii mi ngi juge ci étudiants yi parce que ticket yi nga xam ni moom la ñuy jënd ci restaurant yi wala li ñuy fay ci màllum location li nga xam ni moom lañ leen di héberger koppar yooyu lay dajale pour que étudiant bi mun a nekk ci nekkin bu am solo wala bu normal ci biir campus social bi waaye li nga xam ni mooy grève étudiants yi dañuy remarqué ni saa suñu jugee rek ñoom restaurant yi na nañuy attaqué nan nañ koy attaqué dañuy def ngént tubaab comme nun koy waxee ci sunu jargon mooy dañuy dugg lekk ci restaurant yi sans fay may wax ni restaurant yooyu pour nga mën ndekki fukki dërëm ngay fay boo bëggee añ cent franc ngay ñaar fukki dërëm ngay fay boo buggee reer ñaar fukki dërëm ngay fay mais ça veut pas dire que loolu lay plat di jar parce que état du Sénégal moom moo subvention ne plat boobu ba nga xam ni étudiant bi loolu rek lay fay mais bu dee étudiant dafa jug di grève rek ni man damay dugg te duma fay lekk sans fay loolu buñ ko xaymaa ci koppar ci kurus toll na ci ñett téeméeri million yi nga xam ni étudiants yi donc dugg nañu ci restaurant yi lekk nañu te fayuñu ñett téeméeri million yi nga xam ni ñun waa kurus ñoo ko waroon dugal ci suñu gafa pour delloowaat ko étudiants yi soit ay investissement yu ñuy def wala li nga xam ni moom na leen di defal pour que ñu nekk ci condition yu baax waaye ci biir budget kurus tamit en terme de dépense donc toll na ci un milliard trois cent soixante millions yi nga xam ne daan ka fay restaurant yi ci li nga xam ni étudiant bi dugg na lekk na te fayul mu nekk nag perte bu am solo te loolu lu ni mel mënta sore bu dee li nga xam ni moom mooy étude université bi wala campus social bi dan ko bëgg def ci anam bi nga xam ni ku ko gis ni ni gàcce ngaalaama a ah, ñii de fii ñu nekk ku nekk wala bépp élève bi nga xam ni yaa ngi am baccalauréat bëgg nga dem biir université Saint-Louis dem dëkk fa mais yamul foofu parce que léegi dañuy wax ni léegi dañuy du dañuy dañuy dëkk sax léegi te duñu fay ñeenti weer ñu jël ko décret ni duñu fay boo jëlee ñeenti weer yooyu muy nekk une perte sèche ci maanaam koppar ci cinquante millions yi nga xam ni waroon dugg tamit ci kafa gafa kurus te dugg fa donc boo dajalee perte yi mi ngi toll ci deux cent soixante millions yi nga xam ni dafay naaw ci biir gafa kurus mu nekk nag li nga xam ni dafay dafay dafay delluwaat ci étudiants yi parce que dama naan boo dee revendiquer waaye li ngay revendiquer yow la ngay teg comme revendication day tax na yow da ngay gaañ sa bopp yow loolu tuddeetu ko revendication wala grève parce que ki nga xam ni yaa ngi jiital intérêt matériel ak moraux étudiant bi da ngay xool étudiant bi ni nga xam ni dafay yokk wala nu muy dundee dafay yokk directeur wax na ko université yi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal yëpp muy juróomi université yi université Saint-Louis rek nga fiy gis juróom ñett université université Saint-Louis rek nga fiy gis donc ñuy héberger 42 pour cent seen étudiants yi maanaam téeméer boo jël ñeent fukki ak ñaari donc am na lii yi nga xam ne am na ci biir université yi. boo jëlee UCAD bi nga xam ni moom moo gën a rëy ci université te ku nekk di ko ràññilu téeméer boo jël juróom-ñett étudiants ñoo am lii juróom-ñett donc pour dire que université saint mooy champion wu hébergement wu université yëpp ci Sénégal.